dañu dañu bëggoon rek wax ne tey association les amis de Derklé moo ñëwoon tey organiser fii journée de dépistage gratuite bi euh, nga xam ne ñu ngi fii organiser ko ci biir diggu centre socioculturel de Derklé en présence de toute l'équipe municipale euh, pour saytu jigéen ñi euh, defal leen loolu ñuy wooye le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus mu nekk ñaari cancer yoo xam ne lu lëmbee réew mi la te pourtant booy xool seen dépistage précoce rek mën na permettre ñu fagaru ci mais également ñu am ci traitement boo xam ne dañ ci teel a wér bu dee teel nañ ci jóg li ñu ci war nag ñun en tant que société mais en tant qu'association c'est de faire en sorte que di offrir femmes yi euh, occasion yu mel nii nga xam ne danañu mën a dem saytu seen yaram quel que soit leur âge nag muy mag muy ndaw mu nu ñu mën a tey ñu mën a ñëw ñu xool leen ba nga xam ne vraiment danañu mën a gàttandu feebar bi parce que problème gàttandu la buñ ko gàttandoo rek dañ koy faj kon ñun occasion boobu lañ leen war a mën a offrir naka lañ koy mën a gàttandoo pour mën a faju ba wér ñu ngi ciy profité pour remercier waale ñëpp remercier bàjjenu gox yi euh, ah le le personnel médical du centre de Derklé le directeur et l'inimitable El Hadj merci beaucoup salaamaaleykum euh, man la Oumou Khayri euh, tey dañu organiser woon lii pour le bien-être de la population de de Dieuppeul Derklé mu nekk euh, vraiment je pense que c'est pas une première defoon nañ ko fi daaw daawaati géej macha allah mu réussir. comme ni ko sama président association waxee feebar bi dafa nekk feebar bi nga xam ne bokk na ci li ëpp li muy li muy yóbbu jigéen ci at mi comme bu cancer du col. Euh, kooku moom jigéen ju nga xam ne commencé nga sëy maanaam commencé nga am ay rapport sexuel rek war na la nga koy ñëw di saytu sa bopp at bu ne parce que virus bi ci góor lay nekk mais day nelaw ci góor du def dara góor parce que góor yorul lenn lu nga xam ne organe génitaux bu féminin la donc ci sëy la koy contaminer ku jigéen ki kon ku jigéen bu commencé am contact sexuel rek war nga dem di saytu sa bopp at bu ne pour mën a xool ndax jàngoro bi mi ngi ci yow am déet beneen bi mooy bu bu bu sein bi bu sein bi moom amul âge da d'habitude da ngay gis euh, bu ñu ne mammographie jigéen bu amagul quarante quarante cinq ans mënagu ko def mais saa yoo gisee say règle rek war nga jël say loxo def sa ginnaaw làmb say ween comme aiguille montre nu muy demee sens contraire ah. aiguille montre da ngay jël làmb say ween boo ci gisee lépp lu la jaaxal mu muy donj wala dara nga daw ci docteur mu saytu ko boo gisee ni sa deru ween itam mi ngi changé ba mel ni ku bu yoree powu orange dawal nga saytu ko booy dem douche nga gis ni li ngay génn ci sa ginnaaw mi ngi ñuul kukk te jëloo feer dawal nga saytu ko yooyu yëpp dafa bokk ci ay signe cancer te jigéen ñi duñ ci bàyyi xel donc lii dafa nekk loo xam ne war nañ koy def sax at bu ne pour mën a dimbali ngir xeex jàngoroy cancer ndax cancer c'est une pathologie comme tous les autres day pathologie curable la mais dafa fekk ne boo yéexee jug day incurable dootoo ko mënal dara dina lekk sa xaalis lekk sa xaalisu famille ba pare yóbbu la loolu lañ ciy bañ donc ñuy ñaan jigéen ñi ñu ñu ñëw bu en masse ñuy saytu seen yaram bu baax a baax loolu moo doon biiwu journée bi bi moom dañ koy yeneen feebar yi fi doon jàll comme coronavirus et tout balaa muy àgg foofu nag nañ jóg se ba muy teel di ànd tamit suñu association bi nga xam ne moom mooy aidons-nous vivants ñun nag si wàllum social rek lañuy dox am na Saint-Louis am na dakaar ak yeneen régions yi et maa ngi remercier bu baax ki nga xam ne moom moo di Marie di suñu présidente association bi vraiment mi ngi doxal liggéey bu am solo bu am solo te tamit ñoo ngi woo autorités yi nga xam ne ñoo nekk si réew mi ñu jàppale ñu bu baax parce que tamit ay ndaw bu ñu jógoo volontaire pour di dox si social laajuñu kenn dara jóguñu fenn fëgguñu kenn defuñu kenn dara lépp lu ñu am rek su suñu moyen bokk lañ ko jël def ko ñu ñëw cotiser et tout di doxal lépp waaw vraiment loolu daal laa amoon lu ma wax di ko sànni tamit di ñaan yàlla rek feebar bi nga xam ne lëmbe na suñu dëkk bi mu jóge fi si nu mu ko nu mu gën a gaawee rek te loolu nag ñun ñoo ko war a xeex benn yoon mu mën fi jóge waaw. matin en tant que président de l'association des amis de Derklé euh, de me tenir ici devant vous dans les locaux du centre socioculturel de Derklé mais également en en présence de l'équipe municipale vous voyez le maire juste derrière moi euh, de me tenir devant vous pour aborder un sujet d'une importance vitale le dépistage du cancer du sein et de celui du col de l'utérus. Euh, ces deux cancers qui causent énormément de dégâts dans, dans notre pays. Euh, la journée de consultation gratuite que nous avons organisée ce matin doit pouvoir être une belle occasion de sensibilisation sur la prévention, sur euh, le dépistage précoce, mais également sur le traitement définitif de ces deux cancers qui cause énormément de dégâts euh, dans notre pays. Le cancer du sein est de loin le cancer le plus fréquent et le plus violent dans notre pays. Et pourtant, un simple dépistage précoce à travers la mammographie peut servir à sauver des vies, peut servir à préserver de souffrances inutiles, peut servir à offrir un traitement définitif même de ces deux pathologies. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte que ces examens soient récurrents et qu'il soit vraiment une bonne occasion pour ces femmes de se faire dépister. Euh, notre rôle maintenant en tant que société, en tant que population, mais également en tant qu'association, c'est de faire en sorte que ce dépistage soit accessible à toutes les femmes, qu'elles soient informées des avantages de ces dépistages, mais qu'elles soient également, qu'elles se sentent encadrées tout au long de ce processus cruel qui consiste vraiment la vie des femmes atteintes de cancer.